మేము sama mbokk sunuwaay maa nuyu no sun ois mo oh, so dawal so ois nen so ya andre so men so is ma so ya so is men deglo is men so so no is mo so na ma no te so is mo papa yo si ma tu so ya do na ma ju no yo so si ni nuyu ki ma fi andi andi oto muy pam ñi Euh, Pam ñi nga sa kër Ndiaye loo xam nga di jaay ay photo ay lépp di nuyu sama DG tamit xam nga si la ay pièces lépp lay jaay di nuyu tamit xam nga sama benn grand frère muy euh, nangu dorog Serigne Saliou bu Mbacké quoi. Eh, maa ngi di ko nuyu baax a baax. Maas ayca papa lu la boole kii daje naa moom sa koñ de baal ma teel la. maanaam kii nii wax ju bari moo ñu boole quoi kii du mbër te man mbër laa. quatre combats quatre victoires laa def. du mbër ba pare nga jël ko. li ñu boole bariwul ko moom day wër si bi di wax rek loolu nga am si làmb ñëw wax. mais man daan laa am si làmb ji te dama lay daan. amul laalante nekk mbër day sëf mbër xool gars yi toog bu ñu xoolee ñu gën xool kenn moo gën a sëf mbër wallaahi rajo kenn du ko xool ko parce que moom kenn xamul étendement yi muy nduróol. maas yow doo mbër yow doo mbër yow motoo mbër laa la wax maa yow ñu benn yow motoo mbër. dama ne sa hygiène de baaxul yow dangaa xamul sa bopp moo tax ngay wax gis nga yëppante galgal ubbul làmb bàyyil ba ñu tëj barrière yi ñu xool kan mooy maas bantamba. maas maa yow du làmb làmb boolewuñ la vingt ngay comprendre yow maam coow moo ñu bëri moo ñu boole nii rek ak wax ju bëri ju muy wax si town bi kase looloo ñu boole sinon ay yu muy laax waxu doof yooyu noonu looloo ñu boole. xamul dara parce que amul lu mu war a mën a wax moo tax pour amateur yi moom yaa dégg moom xamul fuy tax bul man wallaay lancim kenn du ko xam Mass Bantamba pour bëri moom tak jamono xam ma si xam la man soxlawu ma la yow doo mbër comédien nga man mbër laa. waa léegi léegi léegi boole ñu leen. ok am na solo Mass. ma bàyyi la rek nga woo sa waa koñ. quatre personnes. waaw dama koy wax rek man lamb si lii rek si fii ma egg si. comédien si barrière la mais bu tëjee synthétique bi dina xam ne man lépp dëgg la. woote woote di nuyu sama gars yi di nuyu sama gars yi muy alaaj Demba di nuyu ñu fi toog ñëpp di nuyu pomel bi di nuyu ñoom Pambay ñoom alaaj Demba ñoom sama gars yi ñoom Amath ñoom ñëpp ki aw ma leen lu may wax ak moom jour wala vingt mai la bu jour may la bu ñu tëjee barrière yi laaw waxoon rek na nga kaa def. ayca demal toog Mass demal toog jërëjëf ayca wooteel papa. waaw d'abord di fii di di di di ñaanal kii nii Anaconda maa ngi koy ñaanal bu baax a baax ak say jàmbaar ak mbëri am combat yi mbëri dëkk Cambérène ak Parcelles di encouragé Talfa bu baax a baax di mu gën a góorgóorlu nax laamu da koy bàyyi xel di woowaat waa Cambérène bu baax ñu jàppale ma ak waa Parcelles ku si mel ne sama papa Talla Nees maa ngi koy woo sëñ Modou Fallou Kol Tafa Diop borom Italie Papa Ndoye borom États-Unis maa ngi ñu jàpp si combat bu baax a baax ñëpp suma ma limee rek juum woo naa ñëpp. macha allah macha Modou Modou ñu dem ci combat bi stop waaye combat